donc euh, nañu nañu nañu bàyyi xel ci loolu te xam ne ku ci nekk rek euh, sa wërsëg moom ngay lekk. Uh-huh. munoo <laughs> su jeexee jeex na. Uh-huh. liñ naan su jeexee rek jeex na. Uh-huh. yaa ngi dégg donc euh, moo tax ñu ñu ñu def jalousie mu bokkoon nag ci EP bi nga xamante ni moom laa waroon génne di ko benn bennal nag di jël sama temps. waaw EP bi di leen ko jox nu ma safee rek. mois bu nekk rek ma génneel leen benn clip incha allah. Euh, jalousie nag ma gis euh, ñëpp gis ci seen bopp. Sénégal yëpp kay voilà euh, Philippe tamit ñëw génne maa ko nopp mhm. ah. Mhm. c'est dommage newu fi kon mu mu faram fàcceel leen ko mhm. moom it. voilà mais mu ngi noonu daal. ñu ne star bu bees moo daal di ñëw buy Philippe. <laughs> non Philippe le nouveau chouchou des Philippe c'est yàgg na ci game bi nag. macha allah mais li li ko papa wax rek bërki démb. ne ko bi nga nekkee xale nga commencé. Euh, te loolu la yàlla dogal macha allah mu bëgg musique torop nag mhm. euh, di ko dund mhm. euh, te mi ngi liggéey mi ngi jàng mi ngi liggéey mi ngi nekk diggante Amérique ak ak Sénégal mhm. te am na yu bëri yoo xam ne mu ngi koy pare incha allah mais mën nañ ko Sénégal ah mën nañ ko xaar waaw di yow bi sur scène la mais oui Philippe dina woy incha allah mais mais jalousie. Mhm. ah yow tamit fii. c'est clair jalousie c'est jalousie. jalousie jalousie <laughs> jalousie c'est jalousie. ayca sañ-sañ yi ñu gis ne Viviane bu xewlee tout le temps dañuy sénégalais yi. Mm. dañuy yàqamti mu génn nag xam nañ ne tendance day ñëwaat. xam nañ ne mode day ñëw te xam nañ ne di nga sol te da nga fonk sa bis. waaw loolu dafay leer nag ndax euh, musique moom ak mode ñoo ànd kon nag euh, xam ngeen ne. Euh, ñaar yëpp euh, dinañ leen ko jox incha allah euh, muy ci bu xale yi di ci bu mag yi voilà. mais mais mais Viviane def ko ak xol. waaw mënuma ci joxe benn ndax euh, man xam nga nit bu siiw laa te benn bu ma ci am rek Sénégal ñoo ko bokkandoo mhm. kon boo ma ko laajee xam nga ne jalousie bu ma dund rek mu fës yéen xam ngeen mhm. ah kon nag euh, voilà ah beneen question bu ñu bëgg a <laughs> micro yi kaay leen daa di sauvé nabu daa ma sauvé naa dee bii nag ah, ah, ma téye ko hmm. yes waa dégg yaa ngi pare yàgg na pare na yow moom say t-shirt ngay jël ah. nekk bu liggéey bi bëree. yow la bu xaalis bi bëree yow la. bu chèque yi gaawee yow la waaw. non déggee. barki di ci. yaa congu ma waaye loo naral xale yi yow. ah man gëj naa lëmbal nag mais fii foo ma lëmbal xam naa ni moom damay lëmbal pare papa dóor ma jaasi moom mais foo ma lëmbal la benn lëmbal bu ndaw papa du la dóor. yaa gën a xam sax papa du la dóor yow yaa gën a xam sax papa yow lay wër. ñaan sama way kër fii sama gars yi kii ni mu nobaatee wuy ma te ndéngeykat lan looy wax bu ma yàq de bu ma yàq de day toog tuuti rek naan allo papa ay mu ma yàq bu ma yàq baa bu yàlla papa ma yàq dafa nobaate de allo papa xaaral papa na Viviane bi yàlla bi yàlla ma wuy ma eh. wuy ma xoolal. da ngeen koy xaar deux heures. xaar nañu ko deux heures. non bu duggee ascenseur dañu koy jël. voilà jël na journaliste yi ci kanam. ci kanam bye bye à tout à l'heure. Nabou Ngom yaa ngi. Eh, Nabou Nabou. bàyyil film bi nga wax. yan ma gaay yan ma gaay attaqué nañ ma de. non gaay dañ la attaqué. mais nag mais nag mais nag yaa yaa xew. mais yaa tëgg bis yu mag nag xew. def clip def clip bu bees. te ku ne xam na ne dëkk bi li ci xew doy na waar. may la ma jaar ah, jalousie bi dafa bari. bi taxawal taxawal. dëgg neexul. xaar xaar xaar xaar ndey ndey xaar. jàll jàll na. fu la neex tëggee. les micros. la la le 20 le 21. dëgg neexul. mais Vivi Vivi mais dix jours loolu kenn mosu ko dem def xam nga gars yi jàpp deux mois un mois waaye nag borom bis mee di mel moo ko liggéey ci yi jël leen ko yaa ko liggéey mais démb gis nañu mu daal di ñëw répétition def relax robam bu ne muut fii di wàcc réseau yaa ngi toj waaye kii kii kii loolu yàggee na ko ah, ah. kii loolu yàggee na ko ah, sama xarit bi mais le 20 ak le 21 du yomb de. déggoo ma ne la le 20 xale yee ko moom le 21 nag ñu baal. Uh-huh. grand baal lañ wax. Uh-huh. waaw bu ko defee chemise yi génn rob yi génn <laughs> costume yi génn. Uh-huh. dëgg neexul. maa la ko wax. ñuy fête li nga xam ne moo di vingt 24 ans de Jolof Band. yow yàgg nga ak l'équipe de Jolof Band lay wax ci loolu. waaw di ci kontaan nag ndax 24 ans loolu yombul. ma ma ma yor ndey Gueye bu nee vingt quatre ans ku ne gisoon na vingt deux yi mhm. mu wàcc waaye vingt quatre ans lan wax geneen gisul mës a gis ndax bu nee vingt quatre ans mhm. jolof band kooku vivian xamuñu day jaar ci jaww ji mhm. day na waar kenn kenn xamul fu mu ji kenn xamul lu war a sol <laughs> kenn mu sëji su mel nii. 24 ans du 24 jours. du 24 24 la wax li donc c'est mu baax nag. waaw moo waral groupe bi boobu ba léegi muy dem. ku ne jaar na fi nag. waaye nag borom bis bee ni mel li may wax rek. ku ñëw sa wàll nga fi. Mhm. ku ñëwul sa wàll nga fi. le 20 ak le 21. Mhm. gars yi tegal sa baaram foofu. Mhm. léegi nag nday la gaa ngi nii. waaw te xam naa ne gars yeeg ñuy xaar. dañuy cof rek waaw dañuy cof rek. mais maman Fifi jalousie bi mu ngi wàccee réew mi. waaw noonu la mën a demee. waaw dafa xew jalousie. mais da nga woy thème boo xam ne ñëpp a ngi koy dund. da nga da nga da nga dompat fi nga xam ne moom la sénégalais yëpp doon jooy ndax nee naa la jalousie Sénégal moom yaakaar naa ne mooy seen deuxième tour. waaw waaw mais jalousie inspiration jalousie. waaw mais di ko dund rek samay morom di ko dund Sénégalais yi ñëpp di ko dund. Mhm. mu xew lool nag. waaw moo tax nag euh, ma woy jalousie pour euh, euh, ñu bàyyiwaat ci xel rek ndax amul. amul adduna mhm. amul solo. adduna mhm. jeex na ba pare. dëgg la nañ ko rafetal.